asalaamaaleykum mbokk yi teela altine juróom benn fan ci shawaal muy weeru kor yi di fukkeelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëpp fukki fan juróom ci weeru avril ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent juróom benn fan bokkul ci lim yi fàtte lim bu rafet la kon tey ci altine ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu wala ku ca daloo ñaanu bis bi yow yàlla noo ngi lay ñaan nga dimbali ñu ci ñu lay sant ak di la tudd ak di rafetal sa jaamu allahuma ainna ala shukrika wa dikrika wa xusni ibadatik allahuma ainna ala shukrika wa xusni ibadatik xadisu bis bi yonent bi salallahu alayhi wa sallama waxoon na seydina ali yal yàlla gërëm ko maa ngi gin ci yàlla sunu borom gindee ci yow jenn waay moo ëpp solo nga am li gën a gànjuru ci alalu àdduna xadis bi dëppoo nañu ci qaala annabiyu salallahu alayhi wa sallam li ali radiallahu fa wallahi la an yahdiya allahu bika rajulan xayrun laka min an yakuna laka xumrun naam muttafaqun alayhi waxtu julli suba waxtoon dana tàbbi waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom tisba 13h34 benn waxtu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 jant bi dana fenk 6 heures 53 juróom-benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñett di soo 19 heures 19 juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-ñeent yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin